waaye li nu am Sénégal jar na ñun ñëpp sénégalais yëpp mbégte mi dugg ci xol yi kenn mënu ko def ku du sunu Boroom wa taala le pépénate yi quatre minutes ñëpp seen xol dalatul <laughs> dem prolongation

foofa nag ca dëgg-dëgg ndóof xamatuma ca dara nga amee bal ànd ak quinze millions sénégalais ñoom ñëpp muy ballon bi xam ne nga war ko tiire ca manqué penalty ah loolu xam nga ne yàllaa ñëw dëgg la dëgg lu rëy la mhm. ngay dóor penalty ànd ak quinze millions sénégalais nu koy dóor mhm. ak chef de l' mhm. nekk ci ay moom itam di ko dóor. ndeysaan. yàlla indi nu ndam lu rëy lii. kon ndam yàgg na Sénégal nag. Mhm. ndoo fax na ko. Mhm. ndam yàgg na Sénégal. boobu amaguñu indépendance. ndeysaan. ndam yàgg na autonomie interne. dëgg la ndaw yàgg na Sénégal waaye ndam lu rëy lii. boolewaat xol yëpp. nu nekk benn président de la république.

Qui ma donne l'agression en crime l'agression en droit Nous ñëpp hmm. de ku ci ne làmb nga ba tàyyi. 48 ans. ñuy des di des di des di des di làmb la Coupe d'Afrique C'est ça. C'est ça. rek ça. Cameroun ndoo fegi non éliminé une fille. waaw 92. Et à quoi? L'âme Abdou du waxoon ni il reste un tout petit peu. c'est ça tout petit peu boobu nous, lay ko. nous ñun ñu lool way tout petit peu lay mm-hmm. nek yo ku nous wax Macky Sall. la chef de l'État, nek gardien de la constitution. Nous, dem nous africaine. Mm-hmm. mu nek président fu ni coupe d'Afrique, ci deug deug and ak ak coupe d'Afrique Sénégal jëm. rek mais Pape ma bëgg na nga wax ma yow bu ñu doon tiré série de tiro bi yow lan nga santiroon sa yaram jour ba. Eh, la ma waxoon Moustapha Ndiaye. waaw. yaa ngi ko yàlla yërëm. Mhm. keroog ba mbay gee soogee duuba lees. Mhm. ma geesu ko di ko Moustapha. Mhm. sama yaram daw na. waaye nag loolu am na vingt ans trente ans. dëgg la waaye yaram daw nag. xam nga mooy lan. mooy ca dëgg de ba Sadio Mané. jëmee ca bal ba. waaw ca bal boobu xamuñu lu muy indi. dëgg la ca dëgg-dëgg foofu rek sama yaram daw na. ndeysaan. dax du woon man rek de. Mhm, bari nañu 15 millions <laughs> du woon man rek de. dëgg la. jigéen. waaw mag ndaw. ñëpp noo àndandoo. ku ci nekk di seet ballon boobu fu mu jëm. waaye yàlla bi xam ne dara toowu ko. billaahi dëkk boobu ba nga jëm ci fii de. dëgg la Égypte. quarante. door na Maroc door na Côte d'Ivoire door na Cameroun wala mhm. waaye boobu yàlla ngi ñëw yàlla moom mu ñëw ak Sénégal. indi nag leçon bu bees a ah. travers le Sénégal. dëgg la. mooy ban leçon. président Senghor. Mhm. l'agression en grammaire. Mhm. député à l'Assemblée nationale française. moo jékki-jékki ni réew mi C'est qui ko yëgal mooy ku wax Lamine Gueye docteur en droit ancien secrétaire d'État au gouvernement en de Léon Blum tàllal naa ko loxo nañu Nous, avons pour Sénégal am jàmm. dëgg la nous fusionner les partis. oui. ci Lamine Gueye le président de l'Assemblée nationale. ok Amadou Babacar Chopard. qui était le ministre de la jeunesse et des sports. Mhm. noo ànd en 1961 dem Abidjan. ok ok ok keroog it dit dóor Cameroun. le matin.

Sénégal jàmm rek la xam. foofu laa bëgg a jëm le fait que mu wootee xale yi ne leen ñëw leen pale xam nga mënu na yem aéroport dem ba ne leen gis naa ne maa leen gërëm mais mu ne leen ñëw leen guddi pale ak coono bi ñëpp gis nga peuple bi ni mu génnee xale yi 18 heures ba 2 heures du matin ñun fii 2 heures du matin lañ fi jógee mu accueillir xale yi mu ne leen ñëw ak seen parents yi geste boobu yow papa yow noo ko jàngee. Sénégalais. Mm-hmm. <laughs> lu xam teraanga. <laughs> waaw loolu am na. kon.

dafa ne. est-ce que xam nga Ndoof. waaw. <laughs> Ndoof kan mooy Ndoof. lay lay la la. <laughs> papa waxal ma kenn mooy Ndoof mu bokk. Ah? si Diourbel waaye su ma saan mayo. waaw ndeysaan. ba dugg ci uh-huh. train bi. waaw ñëpp dañuy wax ne on gagne on gagne ndeysaan. ndax lan daf fit wa a jom ja. <laughs> ak na muy def. kii mooy Ndoof. loolu fekke ko. man daal ci rajo bi laa doon déglu Ndoof boobu maa ngi woon tout le temps. xam nga janoon. ah fii dégg naa bi fii la woon. ci BHS fu mu nekk nii. waaw foofu mu nekkoon. fii la gouverneur général daan ñëw. a une champ de course. une coupe de la OEF, am. ok équipe mhm. le foyer français sénégalais. ndeysaan di wax kan di wax mhm. la gendarme, mhm. nga dem de Saint-Louis. nga dem la saint avec les de Guinée les Maudits, ak les les de la les Youssou ancien ministre. les filles papa xam football moom la. moom nga ne kon xale jot nga laal tuuti wala non danga daan seetaan rek yow. doomu ndar. Hmm, ndar doomu ndar. waaw jàng alxuraan. ndeysaan ak football. waaw. màggate lu ko kenn. <laughs> yaakaar naa nag ca dëgg-dëgg. waaw bu xale yi yeggee. palais palais. Mhm. ba président de la république jóg. Mhm. daa dégg tey lu rëy ci Sénégal. incha allah waaye di la di la gërëm nag. Mhm. amiin mon père ma bàyyi la nga noppale ko tuuti rek après ñu ñu wéy tuuti suñu waxtaan.